salaamaaleykum li may wax nii nag li wax lu ma ñor la tam ma sañoon ñëpp partagé ko ministre bi defe bu ma juumul Lat Diop la tudd mooy ministre ministre de sport ma xëy na mën naa am yow jàmbaar nga xëy na yaa ngi liggéey lu baax ci yoonu mais ñi la wër defaraat ko surtout ñi ngay jox wàllum biir yi pour bu Sénégal day fubal ñi nga gis ñëpp ay sénégalais la ñàkk biir Abidjan dagg nañ seenu xëy te fayoo leen journée ñu jënd ay moyens te joxoo leen ko ñu jël seen temps te joxoo leen temps ñu ñëw dugg ci bis ngir dem sétane marché bi ñu ni leen billet yi 10000 lañ koy jaay bu dé biir Abidjan bu ñëwee ba stade 30000 francs lañ jaay billet pourquoi pas billet bu jar 2000 nga xam bu dé Sénégal gëttu bay lañ koy wax ñëw ba fi sénégalais yi ne fi abi war fa bal ak wa Côte d'Ivoire ñom ñu jël billet tek ci loxo ba nopi billet mënta am ñu jaay billet biir Abidjan 10000 bu agé ba stade ñu lay jox billet 30000 000 Lat Diop ñi ngay jox billet bu ñu la ñëpp ngi am billet waxuñ la dëgg ñi ngi lay nax fallu suñu wa bi li mo xew Abidjan lii moo fi xew billets yi yombut kenn mënu koo teg bët 10 000 biir Abidjan stade 30 000 francs sénégalais dagg seen yite dagg seen lépp ñëw ku ne la nag ñëpp a ngi am billet dañ lay nax nit mën ta dagg taawam dagg am xéem ñëw bu koy jaay ay billets 30 000 francs lu ñaaw la nan ci ba dañuy dem ba loolu ñaaw na lool man nag personnellement sama bopp taxul may bala ñu ne sama bopp laay ndax man Badara Gadiaga bi nekk émission jàkkaarloo moo ma jël en charge moo ma indi sama mbokki sénégalais yi nga xam ne fii lañ nekk dagg seen yitte dagg seen temps dagg lépp ñëw ba fii amuñuy billet ñu yaay 30 000 francs te ñi la te ñi la wër dañ naan am nañ billet ñëpp amuñ billet ñi fi dagg seen yitte jënd mooyo dagg seen i xëy dugg ci biis yi ñu leen yaay francs billet jili am na billet man am naa billet Badara Gadiaga émission jàkkaarloo moo ma andi jëlal ma air Sénégal mais bu dee man garaawut mais ñii ñëpp amuñu ay billet te fii la ñu dëkk day sénégalais xoolal bis bi taxaw lii ñaaw na lool 30